yooyu fësal yooyu lee ay pèlerin ñoom ñëpp ay égyptien lañ mu nekk nag mbir moo xamante rek mbir mu yéeme la ginnaaw buñ ne tàngaay bu métti bi nga xamante ne rek moom moo fa daal di am moo tax nag ñu ñàkk seen bakkan ña leen di mastaw bu baax di leen ñaanal yàlla yërëm leen te xaral leen aljana bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci match de gala bi nga xamante ne rek Pastef diaspora fas yéene na ko amal ak Pastef Sénégal ni ki samedi yem ak ñaar fukki fan ak ñaar ci atum foofu ca stade municipal bu Parcelles ni bu 15 heures jotee rek la ñu koy euh, door ba tax na rek bu ñuy jógee foofu dañuy àddu rek wax ci goro ma secrétaire général bu transporteur routier Dakar Dem Dikk moom nag la mu daal di xam ne rek moo di ne nag foofa ca garage bu boo maraîcher benn Dakar Dem Dikk rek amul fa nag droit gaare fa mbir mu nu mel nag dafa dëppoo cahier de charge yi nga xamante ne rek transport interurbain ñoom ñoo ko daal moom yëf yi nag ma ko daal di xam ne rek ci ab compétition bi nga xamante rek. soumission bi ci jëmi boppam moom moo gagné boobu les marché que ne garage bi ci jëmi boppam rek secteur privé yi ñoom ñoo ko daal di moom kon nag kenn amul droit rek dugg fàkkaar sans nag joxe li nga xamante ni rek moom mooy ab mandat mbir mu nu mel mu ngi ko daal di yëkkati rek xam leen ko suñu nattango yi 7TV jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bés close de notification yi ngir dara bañ leen raw